Modou Lo be Modou Lo moom nga jàkkaar lool caatu kër Mbay Fall moo la wan ginnaaw mbokk yi be Modou Lo ak caatu kër Mbay Fall caatu kër Mbay Fall wan la ginnaaw be Modou Lo am nga benn avertissement am na loo sànni moom kër Mbay Fall ay génn na diggante de be Modou Lo ak caatu kër Mbay Fall jàppante nañu de jàppante nañu Bébé Modou Lo caatu kër Mbay Fall caatu kër Mbay Fall la nga jekk-jekkal ma nga jekk-jekkal moo ràcc noonu daal di wane ginnaaw caatu kër Mbay Fall ak Bébé Modou ku ci nekk jàpp nga gemb lu mu koy bëgg a def noonu ca xabal ba daa sori laa ilaaha illallah ñaari xale yaa ngi bëre caatu kër Mbay Fall ak Bébé Modou caatu kër Mbay Fall Bébé Modou Lo da ngay jël beneen avertissement da ngay jël beneen avertissement boo amaatee benn làmb ji day jeex laay laa am nga ñaar benn moo la dese ay ñu ngi noonu be Modou Lo Caatu Kër Mbay Fall ñu ngi noonu ñoom ñaar génn nga làmb ji jeex na da ngay ñàkk làmb ji da ngay ñàkk ji am nga ñetti avertissement jeex na dañ lay disqualifié dañ lay disqualifié day jeex day dañ lay disqualifié dañ lay disqualifié day jeex day jeex day jeex dañ lay disqualifié oh. félicitations. waaw merci merci beaucoup Modou. waaw waxoon naa la ko ne woon naa kii benn joo laa def non lu tax may def kii paa la kii du ma ak moom sax grand combat maa ko waroon bëre. baa gis nañu maa ko mais daa koy mu def ko neex rek mais grand combat maa ko waroon bëre maa ko fis la kii xaw sax booy jëlaat ama bale bi. maa ngi ñoo woon bëri grand combat bi surtout Falla ñoo woon bëri grand bi maa ngi suñu woon nañu ba pare parce du ma kii nañu may jox ci gars yi diis yi kii bu baax a baax di wax à l'avance nag ko dee xotteeku xotteeku na jël sama avance parce que Sëriñ Tuubaa mbaa xotteeku wut ñoo ma lekk ko ma lekk ko si kaw rombay laa koy aj rombay moo ajoon fa laa koy aj ajagum naa naa benn moo si des waaye ñu ngi sant bu baax nag waa Tëngéej amuñ seen fay waa Jolof amuñ seen fay waa Kaolack waa Kees laam ñu fu nekk nit ñi jugee na fi ñëw si daan si ñu leen sant bu baax nag amuñ seen lii gërëm ñu ngële jakarta man yaa ngi ngële Tëngéej lañ kaa ba Pikine fu ne avant bi Tëngéej la jugee Tëngéej ba fii fi la waajee fu ne avant fi la waajee maa wax loolu jaajëf waay dinaa war a du affaire nag nekkul loole mais boobu lu muy ñëw di loxoon may ñëw ma may lii sama drapeau ma dama koy jëli de Médane Brise ma dama ngay jëlee barki alxuraan yëpp gi nga li ma topp yëpp gi nga li ma topp yëpp da am si lu ma jugee barki alxuraanil karim te dama kaat faar sax barki Seydina Mohamed booy buñ jàppante woon dama koy lekk wër na alxuraanil karim da am si lu ma jugee gis na lii yëpp topp ma dox ma yow maa si gën a neex a xale wër na Serigne Touba sama jàmbaar sama gëm-gëm moo tax xoola ma yegsi fii barki Seydina li yëpp ma topp aw ma kaar aw ma dara barki alxuraanil karim te booy la ak Kër Saar amul jàppale amul dara ba nañu jàppale ngir yàlla war suuli baay ba nañu jàppale buñ bëggee ñu nekk ay champion